si waaw wax nga lu am solo parce que tey jii su ma la defalee benn estimation bu tuuti mm-hmm. tey foo ne quinze mille tonnes mm-hmm. d'or soo xayma woon rek à l'heure actuelle quinze mille quinze non quinze tonnes quinze sorry dama juum quinze tonnes mooy quinze mille. waaw kilo gramme. Mm-hmm. boo calculoon ci xayma rek actuellement actuellement nii may waxee nga xam ne or bi dafa yéeg dafa cher trop. Hmm. nga xamee ni kilo bi dem na ba ci mën naa ne soixante mille euros par kilo. kilo benn kilo. soixante mille euros soixante boo ko xaymee mooy quarante millions presque. un kilo d'or à l'heure actuelle waaw. boo xaymaa rek boo jëloon rek cinquante mille. multiplié ko par quinze tonnes d'or ça te fait sept cent cinquante millions d'euros quinze tonnes loolu mooy prix bi te damaa wàññi sax coût bi dama ko arrondir à cinquante mille euros par kilo da jox sept cent cinquante millions d'euros. donc c'est des milliards. c'est des milliards après nga calculer ko c'est plus que cinq cent milliards. Mm-hmm. donc léegi bijoutier yi di souffrir lan moo tax mën naa ni tey suñu atelier yi artisan bijoutier yi presque yépp moo ngi tëj lu tax parce que xam nga tey bijoutier bi nga xam ne dafa jàng métier ba mën ko hmm. dafa am loo xamee ni moo koy permettre pour mu liggéey hmm. loolu lan la mooy ñii war nga leen ñooñu war nga leen xam de <laughs> waaw waaw waaw <laughs> bijoutier ñi ma ci xamul bariwul waaw hmm. lii suñu problème mooy à l'heure actuelle nii may wax ak yow euh, tey soxna Maria bu bëggoon benn bijou ni ah man dama préféré ka dem jënd sama or dem jox ko bijoutier bi mu fabriquer ma ko ma fay ko mm-hmm. amul fu mu ko jëndee mm-hmm. or brut matière première matière première ñun yi ku ci soxla woon tey léegi am benn commande léegi pour war a dem jëndi or wala argent amuloo foo ko jëndee. ci Sénégal ci Sénégal. alors que Sénégal di produire or bu kenn xamul toll. loolu xam nga xel mënu koo nangu. léegi bu ngay xeex somage am ay ateliers yoo xam ne ñoom dañu dem sacrifier wu ñii bàyyi jàng ñii comme ni ko tonton bi waxee léegi nekkoon ak seeni bàyyi ñu jàngal leen métier ba ñu mën métier boobu. yor ci war ci yor seen njaboot te amuñu fu ñu jëndee matière première pour liggéey ko loolu xel mënu ko nangu sa dëkk di produire or bu kenn xamul nu mu toll depuis ci lu ñu xamee trente bi association bi juddoo ak léegi quatre-vingt-treize ba deux ñu ciy daw guddi ak bëccëg contrainte bi lan la ci liñ wax tey man am personne def naa benn demande naa benn facture pro boo xam ne Sabodala Gold ñoo ma ko defaloon en ah, deux mille euh, dix-sept ou deux mille seize fin deux mille seize dix-sept boo leen demandé facture bi cent kilos d'or ñu defal ñu facture pro parce que ñoom nangu nañ ñu jaay or. Hmm. mais problème bi mooy état bi daf ci teg TVA. buñ ci or brut. parce que foofu dama fay ah, insister bu baax dama fay insister parce que souvent souvent souvent ñu bëri ñuy wax du ñu comprendre tey jii boo seetaanee débat bu mel nii ñuy wax dafay mel ni bijoutier yi dañuy ñaan or soo dégluwul bu baax yow boo seetaanee set écran di seetaan da nga naan mais bijoutier yi lan lañ bëgg mm-hmm. dañu bëgg may or mm. alors que non ñun dañu bëgg jënd or jënd or euh, buñ jëlee ko mel ni Sabodala nga xam ne suñu partenaire la mën nañu wax lool parce que dafal nañu facture pro forma pour pour yi ñu mm-hmm. moom li mu war a def def na ko parce que nee na ma facture pro bi am mi ngi nii ah léegi da ngay dem ci état bi ñu lever la TVA bi rek ma jaay la terminé président ko ah, maa ngi ñëw ci loolu ah, diggéewoon nañ ko fi tey da ngay dem ci état du Sénégal ñu lever le TVA bi tout simplement. aussi ci charge kan lay def charge bijoutier yi. ça veut dire que loolu su ma la waxee mooy bijoutier bi su tëggee bijou bi tey. waaw il peut pas gagner plus que cinq à six pour cent. Mhm. war ci gañ peu. nga ne ko fayal dix huit pour cent taxe te produire gul est-ce que loolu mën na nekk xel nangu ko par contre ma indil la beneen. lu koy leeral léegi imagineel or boobu li ci état même état bi li mu ci am am il paraît am na ci benn part de vingt pour cent vingt pour cent. ci or brut bi ci transaction bi par rapport ak euh, contrat yeeg yooyu même vingt pour cent boobu état bi na ko jaay bijoutier yi ah mais or TVA parce que su ci defee TVA bàyyi nañ kook moom. Hmm. léegi ma lay poser benn question léegi état bi exonéré taxe bi muy dix-huit pour cent. bijoutier yi mën a jot produit bi transformer ko liggéey ko yow tey nga soxla bëgg benn parure nga dem mën a ñëw ci comptoir bi jënd sa or ñëw ci bijoutier bi jox ko ko mu liggéey la nga fay ko main d'œuvre am mm-hmm. mais comptoir boobu mais or maa ngi ñëw ci loolu donc dama bëgg affaire bi leer parce que wax bi dafa bëri te leerul mm-hmm. moo tax may waxee nii pour wax la ni la état bi day préfère est-ce que est-ce que nga jël or boobu jaay ko bijoutier ñu produire ko fii soxna Maria ñëw jëndaat ko comme bien di ko takk ba pare mu nekk bien refusé boo xamee heure bu soxlaa xaalisam day dem jaay amaat ko. ak ñu jël ko yóbbu ko bitim réew. déjà bu ñu ko yóbbee bitim réew ndaxasaay na dem na. du del siwaat par contre bu ñu ko jaayee fii ñu produire ko da ngay def lu am importance mooy lan atelier yépp day dekkiwaat parce que ñoo dee ñëpp dañuy produire léegi di tëgg mm-hmm. yow nga soxla ñëw jënd sa produit ci mm-hmm. suñu comptoir ñëw ñu tëggal la nga fay main d'œuvre bi affaire bi tourné mm-hmm. ba pare loolu des ci réew mi